alors yow lañ denk direction bu horticulture euh yooyu ya nek ci walu woowu non c'est vrai que tey jii nii mën naa ne sénégalais yi euh ministre de l'agriculture ak yow ñom sen xel ci yeen la gëna nek nekk tey jii nii dañoo tombeek ci contexte bu particulier mom moy li ñuy ni mbas crise bi bonne assurance nga mëna jox sénégalais yi soblé ci ak pomme de terre bi nga xamné ne né ne njaay ni dinañ ko soxla bu baaxa baax ci li nga xamné mom moy euh, gungé li nga xamné mom modi ndawal gi ñun suñu besoin par verre ci pomme de mille 7500 tonnes la bu dee tabaski na yegg 8000 ton mais loolu ñaata 8000 tonnes la loolu ma la wax. 47000 ba cinquante tonnes ton dégg nga ko de maanaam 40000 ah ñaata 8000 tonnes la xam nga bari na mooy nombre weer yi ñu mën am pomme de terre tey bu ñu dul ci gànnaam mu ngi fii tëje ci Sénégal. prix du ma ne prix ba mu nekkoon ñaari weer ñetti weer ci ginnaaw lay doon ndax xam nga boromam denc na ko bërëb fu sedd courant jaar na fa fay na ci gardien na daal am na ay charges yu ca ko waaye mën na promet ne prix bi du explosé. souvent liy gën a sonal askan bi tamit loolu la exagération yi ci prix bi ak euh, tefanke yeeg comme ni ma leen koy wooye mhm. ndax sama mbokk Amadou Abdoul Si soldat la wala gendarme mu taxaw ci wetu ñu ko war a def moo waa direction commerce te dinañ ci taxaw muy ministère du commerce kon loolu du am. même <laughs> nga jégal ma même chose mën naa ko wax ci soble bi kon soble bi aussi dina am te ñaari légumes yooyu nag ñoo gën a siiw ci yii njaboot gi di jàmbat bu tabaski wala korité wala gàmmoog màggal jub see kon loolu maa ngi ciy dalal xel dina am te prix bi du ma du du mën a du doon xaabaabal mënu ma joxe prix nag ndax fi may wax ak yow yoruma éléments yi mën a déterminer pri bi xëy na boo jógewoon suñu mbokk waa ARM agent de régulation des marchés ak waa direction du commerce intérieur ñu mun ci addu ndax amna luñuy ci rég mu ndax ci régulation bobu dafa am ci lu ñuy déggoo privé boobu du def lu ko neex voilà donc lolu ma ngi ci dalal xel woné né gestion bi président def mo indi lolu